ca amatu naas ñu wàcc leen seen i wàccuwaay ñi nga xam ne bokkuñ ci amatu naas ñeneen ñu exceptionnel la ñu wàcc leen seen i wàccuwaay bu ngeen gisee bi ñu dee soow ci gànnaar ba bind sëñ Tuubaa ci diggante maaya loolu yëpp sax day gudd day doon ay kilo yu gudd te laaj yi bari na dama leen bëgg a xamal ne ñooñu ñuy tudd muy xalaaj seede si nga xam ne moom la ko limaamul Xasaali seedeel seede nga xam ne moom la ko si Abdul Qadir Jilaani seedeel nga xam ne moom la ko limaamul Junayd di seedeel yàqul ci li nga xam ne Ibnu Taymiya ak Ibnu Ibnu eh, eh, Ibnu Euh, ibnu aqil loolu ñu dal ci koom yëpp taxul ñu nekk ci sun taw tasawuf boo xam ne du tasawuf sunni bokk taxul ñu bokk ci ahlul bida yi ndax buñ delloo ci tawxid dañu gis ne tawxid bi amatu naasi bi amee bi ulama yi amee tawxid boobu la ñu amee da fekk nag dañuy wax loo xam ne ci seen zawq bopp lañ koy waxee ci seen tajriba te loolu ulama yi duñ ko xam loolu lañ leen di diingate waaye du na mu gën a gàtt <laughs> ah, <laughs> eh, doon na eh, laaj ndax ñoom ñaar ñooñu seen tur rot na ci téere ñu bi wala asalsalatul qadiriya defe naa Muhyiddin Ibn mu ngi ci seetaat leen ko. kon mu mel ni kon sëñ bi laaj bi leer na dafa mel ni leeral nañu ne ñooñu li ñu doon wax dafay mel ni ki nga xam ne dafa màndi xam ngeen ni naankatu sàngara bi maritaar bi màndee li muy wax kenn du ko ko jàppee même ci lislaam ndax teyu ko ki màndi ci leeri yàlla yi li muy wax du ko tey kon kon kenn ab àtte amu ko kon sëriñ bi am na beneen laaj boo xam ne kii dafa wax ne. dafa am benn tubaab boo xam ne dafa wëlërante ak moom mu di ko dimbale xeeti ndimmal e, sant it mu saa yu jullee mu ñaanal ko waaw maanaam mi ngi koy dimbale waaye daa bëgg saa yu jullee mu ñaanal ko moom jullit bi muy laaj nag en tant que jullit lan la war a mën a ñaanal koo xam ne du ab jullit kooku mooy bu njëkk bi beneen laaj bi ci des mu ne moom bi xamee ne mi ngi signé passeport am dafa signé yàlla muy allahu la def muy signature ba léegi nag bi mu demee ba am carte de séjour it loolu mu ne est man lay continuer di signé turu allahu woowu wala déedéet ki njëkk ki moo doon nu mu ko waxee de euh, muy ndax ki ñaanal ki am xarit tubaab bi xarit ah. القران لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان لا يهدوا المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دينكم وظاهروا على اخراجكم ان تولوا من يتولوا فاولئك الظالمون gaañu nga xamne dañu génné woon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam makka génné ko saaba yi bi nga xamé né bari dana gudd dana gudd nan gàttal nag alquran nee na yéefar bi nga xam ne fitnaalu la bàyyi na la ak sa diine génnewu la sa kër tox toxalu la mën ngaa jëflanteeg moom ji fi diggante doomu aadama ak moroomam ñaan am na lu dagana ñaanal yéefar ak lu ko daganu la ñaanal mën nga koo ñaanal fan wu gudd mën nga koo ñaanal wér gi yaram fekk na sax fan wu gudd wi ak wér gi yaram wi gënul ci moom ndax na fanam gën a guddee mooy ay moyam di gën a bari na mu gën a amee ak wér-gu-yaram ak muccit gën a mën a moy waaye nag gannaaw mi ngi lay jariñ te ab jullit nga mën nga koo ñaanal yooyu mën nga koo ñaanal tuub dugg ci lislaam loolu mooy ñaan gi gën sax bu fekkee ndax nit ki féeg rooxam gi nooyam gi mu ngi dem ak dikk texe wéyegul ci moom texe wéyegul ci moom ñàkk texe wéyegul ci moom bu fekkee nag yaa ngi koy ñaanal ñaan lu am doole la te suñu boroom gannaaw sopp na ku jëriñ mbindeef yi ku bari njëriñ di jëriñ ndundat yi moo xam doomu aadama ngay jëriñ wala ab xaj bu mar wala weñ wu mar wala lépp lu suñ borom bind nga di ko jëriñ di ko xettali suñ borom sopp na kooku ba du ko lakk ëllëg kon nag kooku nga xam ne mu ngi defal jullit bi lu baax donte yàlla taxul waaye neewoon na dama ko tàmbaloon suñ borom dafa am ñetti xeeti cofeel yu sopp gii cofeel am ñu mu ko jagleel gii cofeel am ñeneen ñu mu ko jagleel ñuy ñu ma ñu àggul ca yi ñu njëkk ña gii cofeel mu jagleel ko lépp lu mu bind mooy nit ki lépp lu mu defar soxla na ko suñu borom bu soxlawul woon lii maanaam bu ko bëggul woon du ko bind nam gi mu namm mu am mu di nammeel ak bëgg bëgg loolu am ba mu bind ko tax na mu araamal tooñ ci yéefar ak jullit ku mu doon araamalit lor dara ci lu dul yoonu yàlla lu mel ne jihaar ak yooyu suñu ba ci yëfër bi dafa am ay xisa yu bare yoo xam ne pour mën na koo leeral waaye dafay gudd dafay gudd diggante na ak Muusa ak kii yu bari waaye ngir ne suñu borom tabaraka wa taala bëgg gu mat gi nga xam